Oumar Sow di président bergerie Khadimou Rassoul jëfati na jëf ju kawe lool ci wàccaayu màggal Touba édition 2021 bi mu indi lu toll ci ñaar téeméeri nag jébbal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalif général des Mourides mu nekk lim boo xam ne dafa yokk lool suñ ko méngaleeg li nga xam ne moom la indi woon daaw ndax daaw téeméer ak juróom fukki nag ak benn la jébbaloon Serigne bi ren jii nag ci ñaar téeméeri nag yooyu nga xam ne moom la indi am na ci juróom-benn nag yoo xam ne dañoo ëmb ba diis. ñu bëgg bu nag yi wasinee ñu mën a jël ci meew mi di ko jox sëriñ bi ndax meewu nag yile dafa baax lool ci mag ndax ay raasu nag yu baax lañ muy ay Holstein ak Montbéliarde di ay nag yu mag a mag ba léegi am na ci nag yi ñetti nag yoo xam ne benn bu ci nekk une tonne lay peese addiya ji nga xam ne nag moom la Omar Sow indil sëriñ bi yëmul rekk ci nag yooyu le ndax am na fukki kamyon yoo xam ne lépp addiya la def bam fees lépp rek jëm ci màggal gi muy téeméeri tonu ceeb ak fukk ak ay téeméeri téeméeri kiloy vermicelle macaroni meew saabu ak téeméeri junni biteelu ndox ak ñaar fukk ak juróom benn ay bonbon café Touba ak kees yi nga xam ne moom moo def këpp ndox di ndoxu somone bi nga xam ne indi na ci lu toll ci ñaar téeméeri junni ak yeneen i bagage yu bëree bëri yoo xam ne mëne su ko lim li nag li muy takku-takku Omar Sow xeeb na ko lool te jëf ji nii la koy defee at mu jot ci wàccaayu màggal Tuubaa gi noonu la koy defee ci màggalu Poroxaan gi muy taalibe bu bëgg lool sëriñ Mountakha Mbacké Bachir ànd ak moom liggéeyub sëriñ Touba bi sëriñ bi it fonk ko lool am yëg ci moom lool ndax farloom ak jëfam ju kawe ak bëggam lu baax rawatina Pastef gi nga xam ne saa su ne mi ngi koy wane ci bisub sëriñ tubaab bi di màggal gu mag yi mbooleem addiya ji nag bi mu agsee sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalif général de Mourides moo jóg doxal boppam ci tànkam yu tedd yi dem nemmeeku ji addiya ji nga xam ne moom la Omar Sow indi. lépp ñu leeral ko ko sëriñ bi nag ànd ceeg mbegteemu kawe lool ci jëf ji ak pasteef gi nga xam ne moom la Omar Sow di wane at mu nekk sëriñ Mountakha Mbacké Bachir di xalif général des Mourides santaat na bu baax a baax Omar Sow ci jëfam ji nga xam ne at mu jot da koy gën a yokku waaye mosu cee dellu ginnaaw ba mu àndee ak sëriñ bi ba léegi muy taalibe bu farlu lool ci jëfam ci pasteefam te jëf ji yàgg lool ndax booba sëriñ Mountakha doonagul xalif général des Mourides yaa man laa sariika lahu